nag ni nga xamee ni noonu lañu maandoo ci bañ a jiitu kuréel yi war a joxe résultat noonu lañu koy ñaane ñi ci des yépp peuple Sénégal peuple bu am taxawaay la peuple bu xam li mu bëgg la peuple bu bëgg jàmm la wante peuple bu dul nangu ñu confisquer ay résultats am la donc taxawaay bi dina mat fëkk donc ñuy ñaan ñëpp ñi nga xam ni ñi bëgg nañu jàmmi Sénégal bëgg nañu stabilité Sénégal ñu bañ a jiitu peuple bi ci li bëgg di leen ñaan yéen ñi nga xam ni yéen a votel opposition bi xam Ousmane Sonko ngeen wala Issa Sall wala Idrissa majoritairement ngeen waajal bu baax ñaareelu tour bi bu ñu ci eggee te am taxawaay bu mat sëkk ci bañ ñu foqati li nga xam ni moom la peuple bi déglu. jërëjëf. monde. Nous vous votre. Nous vous remercions votre propre réaction à notre invitation à a pour objet euh, les Sénégalais sur euh, pratiques et comportements qui, si l'on garde, sont entraîner des conséquences très fâcheuses et dommageables. Nous sommes aujourd'hui l'étape du décompte des votes et des PV qui sont les seuls à pouvoir attester des résultats sont en train de remonter dans les quartiers généraux et à l'état du scrutin ou du dépouillement, aucun candidat je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut s'autoproclamer vainqueur de cette élection présidentielle. Au-delà, il y a une organisation établie qui assigne la responsabilité de la proclamation des résultats provisoires à la Commission nationale de recensement et des résultats définitifs au Conseil constitutionnel. en dehors de ces organes, aucun Sénégalais, puisqu'il candidat, n'est habilité à proclamer des résultats. Je dis candidat, a fortiori maintenant la Le travail de la presse Silence un travail que nous saluons puisque la presse est un élément important dans la manifestation et dans l'organisation d'une démocratie. Nous qui sortons d'une campagne électorale, nous savons l'importance d'une presse, d'une presse libre, indépendante, équidistante dans le jeu démocratique. Et nous remercions et félicitons presse qui travaille souvent dans des conditions extrêmement qui en quelque sorte est même un partenaire puisque nous sommes l'autre levier une autre composante du jeu démocratique. se trouve qu'il y a une certaine presse. Oh il y a une partie de cette presse. Et pour être précis, le groupe Futur Média et la TV et peut-être deux ou trois autres organes qui, depuis 18 heures, transmettent de manière pour préparer l'opinion à l'annonce d'une victoire du candidat Macky Sall au premier tour. Cela est inacceptable. Que des groupes de presse soient des tribunes ouvertes à longueur d'année pour que des gens se permettent d'insulter, d'affabuler, de médire, ça passe encore. Mais une élection présidentielle, c'est extrêmement sérieux. Et dans d'autres pays, le comportement irresponsable d'organes de presse a pu conduire à des situations irréparables et même à des guerres civiles. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que des gens s'arrogent le droit de traiter de manière aussi légère une question qui détermine l'avenir de ce pays. C'est inacceptable. C'est intolérable quand il s'agit de la presse. ça l'est davantage Ce que la presse étrangère peut se faire, les Sénégalais n'oseraient le faire en France. Il faut que les gens apprennent à se respecter. Et qu'une certaine presse étrangère, et notamment française, fasse la propagande du candidat Macky depuis 10 jours. mais nous n'accepterons pas. deux résultats ou d'ouvrir Là où les organes habilités légalement et professionnellement ne le font pas. À leurs responsabilités. Maintenant est devant l'histoire. Et nous appelons les autorités religieuses et coutumières qui sont les régulateurs ou les régulatrices sociales dans ce pays. Nous les appelons à rester il semble être un bateau à la dérive, complètement, puisqu'il s'est gargarisé, de faire de l'habiller l'opposition. Aujourd'hui, vous avez vous-même constaté qu'il est quasiment minoritaire sur de l'étendue du territoire national, mais également dans la diaspora. Mais le Sénégal ne lui appartient pas, ni à lui, ni à son parti, ni à Benoît Bokéakar. Ils sont extrêmement minoritaires dans ce pays. Il faut qu'ils sachent raison garder. Et nous appelons les, les régulateurs sociaux à les rappeler à Nous appelons les organes chargés de l'organisation de l'élection. Puisque la Constitution et la loi électorale les a dotés, les a dotés d'un certain nombre de prérogatives à mettre fin à ces dérives qui peuvent embrasser le Sénégal. parce que l'opposition ne l'acceptera pas, le peuple sénégalais ne l'acceptera pas, cette jeunesse Nous appelons les forces de défense et de sécurité. Est-ce que, nous connaissons bien la manœuvre, c'est créer la provocation, susciter les manifestations, s'empresser pour prendre deux ou trois candidats et les mettre en prison. Nous connaissons bien la pratique, et euh, elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous appelons les forces de défense et de sécurité et la justice à rester républicaine et équidistante de toutes les chapelles politiques. Enfin, nous appelons le peuple sénégalais à faire barrage. Parce que ce qui est en jeu, c'est la confiscation de leur souveraineté, puisque la souveraineté n'appartient qu'au peuple qui peut la déléguer. Et la seule voie de délégation, c'est ce scrutin-là et les autres scrutins similaires qui permettent au peuple de désigner librement ceux qu'ils veulent voire présider à leur destinée pendant les cinq ans à Et donc ce peuple doit faire barrage et par tout moyen nécessaire à la confiscation du pouvoir par Macky Sall et son régime déchu. Voilà ce que j'avais à wolof ñu ne gannaaw bu ñu gërëmee presse bi yëpp ci seen teewaay fii euh, bi ñu leen yéegalee conférence de presse bi rek bàyyi ngeen seen yi fi dañu gis ni presse dafa am solo ci réew presse levier la wala facteur de démocratie waaye presse bi balaa muy gën a mën a jouer rôle rek mooy day doon presse bu maandu presse boo xam ne dafa yem ci informer vrai et juste waaye rôle du moom mooy orienter conscience bi wala du moom mooy dugg ci war a wax mbir mi naka la demee du moom moo ko war a commenté du moom moo ko war a teg du moom moo ko war a annoncé ñu ne nag ñun ñiy jóge ci campagne électorale xam nañu lan mooy solos presse ci dëkk ñun ñii ñoo gën soxla presse parce que moo ñuy permettre ñu jokkoo ak askan wi ba li ñuy def ñi mën koo yëg waaye dañoo gis ni ci élection bi nga xam ne tey jii la fi am bi vote bi amee léegi bi ñu tëjee bureau vote ak léegi defe naa juróomi waxtu dawagul ñu gis ni am na lenn ci presse moo ngi fexe waajal askan wi ba fexe ba bëgg dugal ci boppu askan wi ni am na candidat en l'occurrence candidat Macky Sall boo xam ne mën na gagner au premier tour te ñu ràññee ci groupe Futurs Médias ak 2STV yi ak ñeneen ñu ni mel ñu ne loolu nag lu lu ñu mënut nangu la élection du caaxaan mbirum état du caaxaan réew du caaxaan ku ñu jox licence jox la autorisation nga foog ni nag yow am nga sañ-sañ ba loolu nekk nga def ndax nga sa bopp ku yaakaar ni yaay mujjee kàddu parce que yaa yor sa télé ak sa journal ak sa rajo ba kenn ku ne mun nga xëy waxal ko la neex ndax nga sa bopp askan wi askan wi yow la askan wi weesu na fuñ koy nax askan wi lu mu tànn moom xam na ko moom ci boppam ba tax nag ñu woo conférence de presse bi wala point de presse bi pour wax ñooñu su dee at bi yëpp mën nga ubbi sa organe de presse ne ànd naag ci yor nguur ku àndul ak moom mën naa ko xas wala mu àndi ay saagakat ñu koy saaga loolu ba léegi lu ñu mën a nangu waaye élection yàgg naa taal am réew Sénégal mucc na ci ba léegi même tolof tolof sion nañu ñaan yàlla mu musal ñu ci loolu te duñu nangu ay rajo mille collines wala ay télé mille collines fii ci Sénégal rôle presse du loolu loolu presse mooy luy jóge ci bureau de vote yi te PV yi wane ko nga gaaral ko askan wi te yem te loolu commission nationale de recensement des votes moo am sañ-sañu déclarer résultat provisoire conseil constitutionnel moo am sañ-sañu déclarer résultat définitif Idrissa Seck mii amul sañ-sañu génn ne man maa gagné man mii awma sañ-sañ bi Macky Sall amul sañ-sañ waxuma laa nag pour dul candidat lu dul nga kon ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoom la constitution ak loi électorale jox sañ-sañ pour ñu organiser élection xam nañ ni lii du yoon nañ jël seen matuwaay pour arrêter ko muy CNRA muy commission nationale de recensement muy Sénat muy keneen ak keneen ba ci conseil constitutionnel nañu arrêté dérive yi nga xam ne gis nañ ko balaa muy balaa muy ëpp loxo ñaareel bi mooy Sénégal dafa toog ci benn sookul boo xam ne mooy suñuy kilifa diine ak suñuy kilifa aada ñu ngi leen di wax nag nañu wax balaa mbir mi di ëpp loxo nañu woo Macky Sall ne ko na delloo si xelam parce que nguur nag bu jeexee rek jeex na bu jotee jot jeexee jeex na kenn mënu ci dara kon nañ ko na delloo ci xelam parce que Sénégal moomu ko donn ko balaa mu fi nekk ay nit a jiite Sénégal bu seen àpp jeexee jeexee dem nañu bàyyi Sénégal ci jàmm kon bu yaakaari ni moom ak Benno Bokk Yaakaar mën nañoo foqati nguur te li yéegagum ci résultat yi wane na ñoom minorité lañu ci réew mi te déjà législative yi wane woon na ko waaye gën naa aggravé wu fii ci élection présidentielle kon nag kilifa yi wax dañu bàyyi élection bi continuer ni mu war a continuer bu résultat jotee ñi ko war a jébbale jébbale ko mu jaar ci yoon bu dee moom moo gañe ci lu leer nañ dinañ ko woo félicité ko bu dee keneen la it muy Idrissa muy Ousmane ko muy Sassal ñu xam ni kookoo gañe ñun ñëpp ñu woo ko félicité ko ñaanal ko yàlla oyofal yenn bi ci moom parce que kat yëre lañ leen réussir parce Sénégal progrès ak développement. di wax tamit ni ñoo ngi ñu jël seen matuwaay ñoom it bu loolu wéyee wala bu bëggee am na Sénégal yëpp génn man maa ko jël sama responsabilité wax ko parce que parce que

parce que dootul président bu boobaa su dee élection bi jarul yoon ma nag ci wax ni gis nañ ni waa presse internationale rawatina nag ay médias français gis nañ leen ñu dugal seen loxo trop ci élection Sénégal gis nañ leen ñu dugal ay émission ay ay ay euh, reportage tendancieux lu mel ni RFI ak France 24 ñu ngi ni di wax ni Sénégal googu ñu yaakaaru ni moo fi ne ba léegi newatu ñun amuñu seen complexe journaliste sénégalais ñemewul dem France di wax ci seen élection nañ ñu respecté am na loo xam xam nañ ñi nag ñoom suñu sañoon Macky Sall mooy toogaat ndax mi ngi leen di jeebal bu baax waaye askanu Sénégal mooy tànn président du France mooy tànn président Sénégal du Amérique du keneen ñu ngi leen di wax nag nañu respecté Sénégal ndax respecté nañ leen lu ko may rek mbir mi ni muy jeexee ci ànd goo xam ne ànd gu yàgg la du rafet te yéene leen ko kon loolu mooy li ma ci sànni ci lu gàtt à la suite du président Idrissa Seck di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum dafa sax xobaraan taw fi am sow Thank you.

Sonko kontaan nga